asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di rafetlu nag jataay bi li si njëkk sant ministre Abdou Karim Fofana nga xam ni ministre commerce mais mooy porte paral gouvernement ni mu téye mbir mi boobu ba léegi di fexe saa yu ne gouvernement bi di toog jàkkaarloo ak yéen yéen nga xam ni askan wi ngeen fi nekkal di leen jottali suñu kàddu ak suñu xalaat loolu defe naa ñëpp ko rafetlu kon bokk Abdou Karim ñu ngi la ci sant bu baax di la si sargaal ah man nag ci li ma bëgg ñu waxtaane ko mooy mbirum situation internationale bu ñu waxee nag situation internationale mooy lan mooy taxawaayu Sénégal commencé ko ci njiitu réewam mooy président Macky Sall lan moo nekkoon taxawaayam ci situation internationale boobu njëkkee ko Russie bi ngeen xam ne Afrique yépp daa dem daje ak waa Russie boo leen di seetloo euh, daanaka daje yooyu daawuloon di am di ngeen daan dégg France Afrique di ngeen daan dégg yu ne ak Afrique mais Russie ak Afrique moom daawuloon am ah la preuve bii mooy ñaareelu ndaje bi mbir mi amee ba léegi kon boog yàggul bi njëkkoon am Sotchi la 2018 rek la woon kon boog mbir mi yàggul daanaka lu bees la président Macky Sall nag am ci taxawaay bu am solo déggoon ngeen fii daaw demoon na fi Sotchi mu nekkoon président Union africaine euh, mu demaat ren dem Kiev. mooy capitale Ukraine dellu dem Saint-Pétersbourg fekk ji président Poutine moom ak yeneen naataangoom Afrique di wut jàmm di wut tamit ci suñu biir waxtaan ak Russie balaa sommet bi ñu sax naka lañuy dugalee jàmm jooju ba Afrique jël wàllam ci dalwaay bi ñu warul dal ci biir àddina bi nga xam ni fitina def caa bari doole donc loolu waxtaan bu am solo la président Poutine nag ci ndaje moobu am loo xam ni wax na ko jëmale ko réewu Afrique yi muy lu am solo euh, daanaka lu mel nii nu mu leen di jaayee ay ay céréales céréales nag da nga may baal xaw ma nuñ koy waxee ci ci olof ay pepp waaw nu mu leen di anglais sax koy wooye d'ailleurs grains <laughs> donc nu mu leen di jaayee ay ay ay pepp président Macky Sall wax fa wax bu am doole ne ko damay dégg ñu naan dañoo ñëw pour saraxu man de Sénégal laa mën a waxal ndax Sénégal ma fal man saraxuwuma kenn damaa teg leen mbir mi ñun ñu jënd ko ndax mun nañ ko jënd donc ñu waxtaane loolu waxtaane moom président Poutine lan la jagleel Afrique ci mbirum coopération muy mbirum koom-koom muy mbirum paj mi santé muy mbirum infrastructure maanaam raay yeeg ak yoon yi daal waxtaan bu am solo waxtaane ko def ko waxtaane foofu ak njiitu Afrique yi loolu bu leen soxalee mun nañ dugg ci euh, ponk boobu euh, euh, beneen bi mooy li ñu demoon keroog euh, dem Abuja muy euh, euh, capitale pays Nigéria waxtaane fa ci lu xew Niger Niger li fa xew xam ngeen ko lu métti métti le coup d'état la nga xam ni Guinée def na ko fii Mali def na ko fii Burkina def na ko fii bii mooy ñeenteel ci suñu wet gi rek fii ñu nekk maanaam Afrique jant sow kon boog loolu taxoon na ba président yi dañoo jël ay ay ay daan daan yu dëgër ne Niger bu fekkee fii ak ak semaine euh, euh, delloowu leen ci civil pouvoir politique civil daan yooyu dina dal seen kaw bu mu indi ay wax yu xaw a ñagas tuuti suñu diggante ak ñi fa toog tey ci nguur gi Niger maanaam muy soldaar yi mun nañ ko waxtaanee bu la bu fekkee loolu soxal na leen beneen poñ bi mooy euh, ndaje bi ñu mujjee am barki démb rek ca Gambie ci Banjul ni président Macky Sall daa fekk ji woon président Adama baro ñuy seet nag ñun suñu diggante naka lañ koy dëgëralee buñ ko dëgëralee naka lañ koy wéyalee mu dem ci kanam mu nekk nag lu am solo di ngeen dégg su mu nekk suñu ministère affaire étrangères ngeen gis ministre bi ak beneen naatango ministre bu jóge bitim réew ñuy signé ay ay accord ñu koy woowee commission mixte de coopération bii nag mooy bu gën a mag loolu ndax kii ci Euh, euh, ci président yi la tollool muy la am solo ndax suñu diggante bi ah loolu nag Haalpulaar yee ko wax ma tekki ko ci wolof ñaar ñu mënul teqali ko faw ñuy ànd bi mbaawaa surtout di ngondat ñaar ñu mënul teq ñu faw ñuy ànd ñu nag Gàmbi loolu moo ñu dal ñuy seet nag ànd boobu bu gën a rafet bu gën a amal njëriñ suñu ñaari askan yi mu doon benn askan naka lañ koy dexale loolu lañ fa defoon foofu tam ñu am fa loo xam ni ay kayit yu am solo yoo xam ni euh, signé nañ ko foofu suñu soldaar yi war a dem Niger di laaj ndax soldaar yi dañuy dem ah kañ mais balaa tontu laaj boobu di mën a wax ni lu tax ñu war fa dem li tax ñu war fa dem muy coup d'état yi ñu ngi commencé nag di bëri te lu bëri di bëgg a soof te lu soof nag ñëpp dañuy dem ba yaakaar ne mooy yoon gis ngeen li am Mali gis ngeen li am Burkina gis ngeen li am euh, Guinée ñu ne bii nag dafa doy te du ëpp tuuru président Afrique yépp toog ñuy bokk CEDEAO en tout cas ne lii nañ leen def ay daan te suñu soldaar yi nañ dem yéen a ngi fàttaliku boobu bu ñu defee fii ak waa Mali di waxtaan ak ñoom ñëpp ne CEDEAO amatul kuréel gu dee la tekkiwuñu dara ñamewuñu sax def ñëpp di ko coow fii léegi nag CEDEAO tam bëgg a won ne que lii mbir mi mun na ko taxawal Sénégal nag yore signature am nga xam ni moom bu xas yéene ba wax dara wax ma sax di ko xaatim bu ko waxee rek moom dugal na boppam dootu ci génnaat astamaak bi mu ko xaatimee moo tax président Macky Sall nga xam ne mooy chef suprême des armées moo jiitee à armée yëpp ne suñu soldats yi dañuy dem naka la ñuy demee ak kañ la ñuy dem kooku ñoo ngi waxtaan seen waxtaanu soldat euh, démb tey xëy na ëllëg ñoo ngi daje ñoom ñëpp chef d'état-major yi di seet mbir moomu naka lañ koy doxalee ba li président yi wax ñoom ñu mun ko wéyal ndaxte Niger dañ ko may benn benn semaine diir pour euh, ñu mën a bàyyi ñoom soldats yi nekk Niger wala alors suñu soldats yi dem foofu